أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن محمد ابن أبي الله نيغي سانتات سونو بوروم سبحانه وتعالى باخا باخ دي جيلي سيرنتي مو تيدو دي سيدنا محمد سيد الوجود امام المرسلين وا نيغي ديلو دي سانتات بو باخ سونو ياكار تيك الك شيخ احمد بامبا خادم رسول لو فونداتور دي فوا موريديزم نيغي كوي سانتو باخا باخ ñun nag waa daayira Cheikh Abdoul Karim Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Fadal borom makaarimul axlaax Touba Yarax an Montagne 6 ñoo ngi fii ñoo ngi fii si ndigalu sëriñ bi si ndigalu suñu jëwriñ maam Lamp Fall ki nga xamante ne si moom lañu bootu moom moo dox suñu digganteeg sëriñ bi nga xam ne tey ji fédération bi mu tënk sëriñ bi jox ko si ndigal muy booloo mooy doole si fédération boobu la ñu bokku ñun waa daayira yaraax tey nag ñu ñëw fii si màggal gi màggal gi ñëpp xam nañ li Sëñ Tuubaa wax xarajtu yow ma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fi sari safara bis bi nga xamante ne si la Sëriñ Tuubaa amee ndam lu rëy li si la defee wu mag bi kon bis boobu la ñuy ñëw di màggal si ndax sëriñ bi dane santale leen ma yàlla sunu borom si la si seen làmmiñ ak si seen jëf kon tay gi ni bu ñëwee fi and ak suñu yaakar tay ëllëg sin Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallu di santalé suñu borom kon dañuy suñu borom bu défé mu fekk ñu fi kon dañuy santat yalla bu baaxa baaxa baax li sëriñ bi wax nak rek lay waxat sëriñ Touba dañ ko wara sant bu baax ndax sant yi ñaar la war nañu sant suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamantene mo ngi sax def ay murit def ñu ay julit def ay murit defuñu it ñu fekkee bis bii war nañ ko see sant bu baax a baax waaye war nañoo sant see Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moom mi nga xamante ne tey jii nii lii buñ ko amee ginnaaw yàlla jëmam la suñu borom si moom la ko jaarale ndam lu rëy nii waaw kon ñoo ngi santaat bu baax a baax a baax di leen présenté waat suñu kuréel gi suñu daara suñu liggéey ñuy daara Makaarimul Axlaaq nekk si Hann Montagne 6 di njabootu Sëñ Abdou Karim Mbacké mu Sëñ Fallu ñëwoon fii si Touba Ndindi nga xam Sering bi Guédé la doon magalé mais bo xolé depuis en en 2013 la ñëw ndindi fi di di ko màggalee ndax ndindi dëkk la bo xamné ne sëñ moko moo ko sosoon ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul serigne Touba bu mu jigee si tukki bi ci la yabal serigne Fallou Mbacké bu mu ñëwé njaboot yi ku nekk da am fu ko yabal sëñ Fallou nak nga xamné ñun moy suñu yaakaar tey ëlëk fi la ko yabalon si dëkk bi di ndindi di penku Touba bi. c'était en 1913 boobu ba léegi nag Ndindy ngi fi waaye 2013 la sëñ Abdou Karim Mbacke ñëw ñëw ñëw sañcaan Ndindy yeesalaat ko woote waat fi liggéeyam bi kon boo xoolee diggante 2013 ba 1913 da lay jox cent di xarnu kon loolu wax dëgg fa yàlla dañuy am rafet jot ne moom moo dellusiwaat bu wér yeesalaat dëkkam bi moom sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallu te wax nañ ne Ndindy tableau Ndindy archive Ndindy kayit bi ndindi sëñ Fallou ba mu koy samp ndindi Abdou la ko tuddee kon ba tey dañuy am rafet njort ne Abdou boobu mooy sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou rek waaw kon moom moo dellusiwaat yeesalaat dëkkam bi waaw ñun nag ñoo ngi nii wax dëgg fa yàlla ànd ak daayira boo xamante ne dafa composé wu diggante ay góor ak ay soxna ay góor yàlla ak ay soxna man ma doonoon seen njiit laataa man am ma jëriñ yu fi nekkoon waaye tey jii nii daanaka dem nañ Europe ku mel ne ma dëgën ay Mamor ay Kamal ñoom ñëpp ay Ahmada ay Ndene ba si abo mii nga xamante ne tey jii nii moo ñëw teew fi comme suñu élément boo xam moo fi teewal waa diaspora bi yëpp. waaw jóge ba nga xam ne daanaka suñu élément yi ne Italie leen teewal yàlla waaye fii bu ñu demee Ndakaaru ku mel ne Amdi Moustapha nga xam ne moom moo jiite liggéey bi foofu noonu au niveau si daayira bi waaw ñun nag ñooy seen jëwriñ waye dañu fété kër sëñ bi dal liggéey bi mom lepp sëriñ bi dako tënk ci hiérarchie ndax tay gi man mi jëwriñ lam fal mom moy sama kilifa mom mo dox suñu digënté ak sëriñ bi nga xamante ne bépp ndigal bo xamné ba wonu si bi ci mom lay juggé jaar ci mom lay jaar tàbbi ci suñu jëm yi bu juggé suñu jëm yi tàbbi ci am di mu yaatal ko ci liggéey bi liggéey bi wax dëgg fa yalla ñëpp ni nga ko wara doxalé rek non lañ koy doxalé am na bureau am na secrétaire général am na ay trésorier composant lépp loo xamante ne daal war war war institution war na ko am rek liggéey bi am na ko pour war ne wax dëgg fa yàlla liggéey bi dafa dafa ànd ak jamono di dox te noonu mu amee si góor yàlla it noonu la amee si soxna yi liggéey Cheikh Abdou Karim Mbacké mu Sëñ Fall nag moom moo doxee noonu si jamono ñuy woo ñuy defaat benn rap benn appel di woowaat mboqu taal bi nga xamante ne ñoom ñoom lañ bokkal goxu yaraax ñoom ñëpp ñu leen di woowaat si liggéey Cheikh Abdou Karim Mbacké mu Sëñ Fallu ne sëriñ bi moo sama liggéey bii sama liggéey bii fekk maa ngi fii di ko woote képp koo xamante ne tàbbi nga si ak foo mën a bawoo membre fondateur nga si liggéeyu makaarimul axlaax kon ñu ngi si woote woowaat bu baax a baax waa yaraax yëpp di si soññaan ñëpp waaw màggal gi nag moom dañuy sant sunu borom bu baax a baax ndax tey gi boo xoolee man sax féetewu ma fii maa ngi kër sëñ ba maa ngi foofu noonu ndax suñu borom dafa def daanaka ñu fa nekk si wàllu si wàllu yor wàllu cola wàllu wàllu collation ak wàllu xéewal añ reer ñi nga xamante ne ñoo fa nekk yor wàllu sécurité bi ak santé ñi di leen aar ñoom ñëpp sëriñ bi dama daf maa woon bu ma ñëw mu ne ma na nga leen di toppatoo te ndigal moom benn képp la loolu lañ jàpp ndax ndigal loolu ba mu jiwee ba léegi si at ah, ndigal loolu la dañuy dox at bu jot di ñaan suñu borom yokku waaw di ñaanalaat bu baax a baax a baax képp koo xamante ne yaa ngi si daara bi diggante góor ak góor ak soxna góor yàlla ak soxna yëpp suñu borom defal leen tawféex defal ñu jàppandal ba bu ñuy ñëwatee di màggal yi buñ fi raayee benn nag ñu raay fi ay nag yi nag waaw xéewal gën a yaatu si barke Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul kon bu ko defee dañuy jël suñu kàddu rek di ko joxaat ki nga xamante ne moom moo moom moo yor liggéey bi yore daayira bi foofu noonu di Amdi Moustapha waaw moom it bu noppee ñu jox. ñuy wax abo mi nga xamantene ne fi téwal wa Diasporabi yépp au niveau de yarax mo mu wax mu wax ci kàddu wa yépp kon am di onzi bila bisimilah inna wani yàlla jërëjëfati Serigne Touba jaaraama maam Cheikh ibrahim Fall ngàcce ngalaama ba Abdou Karim mbake Falelu suñu yaakaar tay ak ëlëk ñu ngi touba du baaxa baax ci kàddu yi nga xamantene ñu ngi koy yëkëti suñu kanamu jëwrin ndax mom lepp waye da di ni ko daanelee rek foofu lañuy tambalé ndax dañuy ndigal santul nu dul dañuy faral di dégg si sëriñ mu ne ndigal mom ciabi la rek bu ëppee du tiji bu yéssé du tiji. te it boo forcé rek mën nga yaq kànnaar bi waaw ndax mom bu waxon ba nopi rek def ñaan rek matna waaw dañ koy santat nak mom bu baaxa baaxa baax ci si bis bi nga xamanteni mo ñu fi taxa dajé muy bisuk sëriñ Touba gi dañ ni ku magali bisam bi wax dëgg fa yalla jihad nga aj nga um nga am nga yol ba kon dañ ko siy santaat moom Serigne Touba bu wér a wér a wér a wér ndax bis bi dafa waxoon ni saa suy yegseetee rek nañ ko si santale sunu borom ndax lott na si ñu nit lott nañ ko lott nañ si bu baax a baax di ko santale suñu borom waaye dañuy jëm suñu kem kàttan rek waaw moo waral ñun ñu koy sant bu baax a baax a baax ku tedd ki waaw comme ni ko bu soobee waxee rek muy suñu jëwrin liggéey moom danoo tënk si benn fédération bi ñuy wax BMD booloo mooy doole. bi xamante ni suñu kilifa gi dox suñu digganteeg sëriñ bi muy jëwrin maam Lamb Momo moko jité wa bo gisé ñu né RH bi nak mom dafa nekk la xassay bi nga xamanteni si daara ji la fété kot se ñu ñun yi nga xamanteni ñu ñoo yor liggéey bi fi si euh, si daayra bi waaw ndax ndigal bu joggé si sëriñ bi rek si jëwriñ maam Lam fallé jar jaar jaar si mom dogo yegg si si ñun ñun ñu yaatal ko waaw ndax bo xolé goor yàlla yaang fi soxna yaang fi ndax ñun non lañuy andé di liggéey rek te yàlla rek tax waaw lepp lu nga xamanteni ñu ngi koy si bis bi rek di si santale Serigne Touba suñu borom rek ñu ngi si ñu ngi siy bay suñu wewu tànk muy guddi muy bëccëg ndax boo xoolee euh, góor yàlla man maa leen jiite ak lu si mel ni ñoom Basir bi toog sama wet ak abo bi nga xamante ni nekkoon na si kuréel gi ba tey bàyyiwul kuréel gi nekk euh, bi fii ba Espagne ak ñoom Kaboro ak jëwri naat yi xamante ni tey lim na leen ñi nga xamante ni ñoo jiite woon kuréel gi nekk au niveau de Europe waaw ku lim rek da ngay juum ñoom ñëpp ñu ngi leen siy sant nag bu baax a baax ndax bis bi tey bu demee ba mel nii rek grâce à ñoom ak ñun ñi nga xamante ne nag ñu ngi fii waaw jolof gi ndax dañuy def di dóor waar di dajale suñu xéewal lu nu am ak lu nu amul booleeg ñoom li am ñu ñëw sant si Serigne Touba sunu borom si bis bii. kon dañuy ñaan sunu borom rek lépp lu nga xamante ni rek ñu ngi ko fiy mbébét wala ñu ngi ko fiy sàkku rek ku tedd ki defal ñu ko mu doon lu gën si ñun dëppoog li li nu bëgg. waaw si barke si Abdou Karim Mbacké moom sëñ Fall di sunu yaakaar teeg ñu ngi sant nag góor yàlla yëpp. waaw sant boo xam ne am na fu mu fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ak soxna yi yi nga xamante ni tey soxna Sali Diame moom moo leen jiite ak maam Diarra Ndiaye ndax mu ne soxna Sali Diame sax moom mi toog moom mooy borom këram waaw kon daal foofu la ñuy tënkee suñu kàddu di ñaanal tamit suñu jëwrin moom mi toog Modou Boussa ak jëwrin maam Lamb Fall bi dox suñu diggante ak sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax loolu lépp lii lépp ñoom ñoo ko waral waaw lii nag boo gisee tey ñu ñëw toog si kër gi di fi daje moom moo jox ndigal boobu ñu toog fii di togg ay bernde di yaatal si jaamu yàlla yi waaw ndax léegi rek si këram lañ jógee te dañuy waaj ziar boo xamante ni daayira yi nekk yaraax yëpp ñoom ñoo koy ñoom ñoo ñun ñoo koy daje dem siyaare ji ko ndax yi ba tey fii si dé suba ba tey ñu ngi koy siyaare euh, ñun nag ñun ñoo si des waaw kon ñu ngi leen di sant tamit waa Hann TV bi bu baax a baax a baax ndax lii tamit sag la waaw jógee suñu gox yaraax dem si sëriñ bi jaar fi ngeen war a jaar yëpp ba dajeeg jëwrin mu xamal leen kat wax deug fa yalla wa yarax ngi ngi fii pere ngeen ni ñoo dem te ñu si wa yarax kon yéen tam ñu ngi leen di sante bu baaxa baax di leen di leen ñaanal affaire mom yalla na yok rek si barke magal ge ba fépp fu ngeen bëgg mu jëm rek suñu borom jëmele ko fofu mu mu doon lu kawé waaw ñi ngi tuubaat nak bu baaxa baax di jox abo mi nga xamanteni mom mo fi représenté wa diaspora bi rek mu lu si ay cadeau waaw jërëjëf waaw bisimilah na wane yàlla ah, di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu mbokk jullit yi di leen wax daal ñun moom suñu xol dafa sedd parce que léegi bi fi ñu ko bàyyi woon depuis 2012 ba léegi dañoo ñëw fekk mu yokk wax dëgg yàlla moo tax kàddu yi nekk lu dul kàddu kàddu sant ak gërëm daal la ñuy def ñun dañuy sant bu baax a baax gërëm comme ni ko jëwriñ ni waxee jëwriñ moom bu ñu waxee ba pare xam nga daanaka lépp mën na xaale yi wax ndigal rek ndigal jëfe waaw di santaataat bu baax a baax a baax di ñaan daal fi ñu teg suñ tànk ak ñëpp rek di ñaan yokkute bu wér a wér a wér ñaanaat bu baax a baax rek sant gërëm daal bu wér a loolu daal lay def wax dëgg yàlla yow bunta wax nag ci mbooloo tamit xam ak yooyu mais xanaa sant daal bu baax a baax rek di wax ne daal gars fi ñu teg seen tànk foofu la liggéey bi moom fii rek fii kese la bernde comme ni ko góor yàlla yi di defee bernde Bachir bisimilah. auzubillah bisimilah inna waani yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul gàcce ngalaama Cheikh Abdoul Karim Mbacké mu sëñ Fall laa ilaha illallah yàlla yaa nu maame ci manu maam laa ilaha illallah La ilaha illallah ya la ya diburu Iyan la ilaha illallah Allahu Akbar ya la kenala la ilaha illallah Syekh Bamba la ilaha illallah Baikari mufalilo La ilaha illallah narumam awafai ki manu maam la ilaha illallah allahu akbar oh, yàlla kenn la la ilaha illallah Cheikh Bamba la ilaha illallah sunu maam xaadima rasulullah ci yàlla la ilaha baay karim falila baay karim la ne dundal trente-cinq te nga teg ci say soixante-cinq Mbàkke soo ko boolee moo di cent ans samaam teg ca yeneeni onze ans jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Serigne Touba